سيخي منتخى يا يسون خليفة خليفة سنرا بابا من مريدي بقننك يو يا يسقو مريدي سيخي منتخى nañ ci yow yaay sagu murid Seexi Muntaxa yaay sunu xalifa xalifa général ñun murid yi bég nañ ci yow yaay sagu murid Seexi Muntaxa murid yi Muntaxa ni nga bëggee Tuuba nga bëggee murid Seexi waral ñépp nangul la sangu murid Cheikh Mountakha ni nga def barabu Maam Jaara. ni nga def daaram Jaara. ni nga def barabu Maam Jaara. ni nga def daaram Jaara. Cheikh Mountakha soo ca yamoon. am nga ndam sagu murid yee. ni nga def barabu Maam Jaara. ni nga def daaram Jaara. soo ca yamoon am nga ndam sagu Seexu Muntaxa Seex Sidil Muxtaar lim fi naaloon yaa ko àggale Masaalikul Jinaan yaa ko àggale juróom ñaari sooroon yëfa Tuuba yaa ko àggale Sëñ Muntaxa soo ca yamoon am nga ndam sagu murid yee li nga def Muntaxa Sëriñ Saaliw yow la doyloo Seex Muntaxa Alaaji Baara Falliloo yow la doyloo Seex Sidil Muxtaar Mbàkke Tuuba yow la doyloo liggéeyal nga leen ba jox la seen ngërëm yaa Seex Muntaxa

sëriñ bi ñaanoo aya ko tàmbale ñépp si bëgg te di la ñaanal nga àggale ñépp la naw ci sawu waxin Seex Muntaxa ñépp la naw ci sawu doxin Seex Muntaxa Baay Muntaxa ñépp la naw ci sawu jëfin sagu muridiye ñépp la naw ci sawu waxin Soxna Baali Muntaxa ñépp la naw ci sawu soxna maam jaara Muntaxa ñépp la naw ci saw jëfin xalifa général ñépp la naw ci saw waxin Seex Muntaxa ñépp la naw ci saw doxin Seex Muntaxa ñépp sunu maam muntaxa ñépp am xam-xam

la sa maam yaa nga ca la sa maam bëggoon yaa nga ca Cheikh Mountakha Bassirou Cheikh Mountakha ku dem ma dem dem ci Seex Moodu Bamba ku dem ma dem ku demul ma dem yaay xalifa général bi ku dem ma dem ku demul ma dem ci Seex Moodu Bamba ku dem ma dem ku demul ma dem Seex Muntaxa Basiru ku dem ma dem ci Seex Moodu Bamba ku dem ma dem ku demul ma dem ci Seex Moodu Bamba